kenn ku nekk xam na ni Malaw moo doon fasu Lat Joor te Lat ak Malaw dañoo nekk ay symbole ci maanaam Kayoor donc c'est une manière de revisiter l'histoire parce que da mën naa ne Lat Joor deewoon na mais dekki na tey parce que je suis la première personne je m'excuse je n'ai pas l'habitude de le dire bu jël Lat Joor indiwaat ko pour symboliser ay actions créer ce qu'on appelle la cour des damel cour des damel boobu c'est pas gratuit pour nit dugg ci il faut mu def ay efforts il faut mu def ay résultats cest à man dama ko def lu ñu tuddee ñaax maanaam damay ñaax nit ñi pour ñu nekk ay jàmbaar damay ñaax nit ñi pour ñu góor góorlu te ci ñaax boobu ak ci góorgóorlu boobu ñu li soxla ci région bi ci loolu lañ ko mën a amee. Euh, dinañu jërëjëf euh, yéen a ngi ba tey di seetaan euh, li nga xam ne moom mooy Thiès ca kanam Thiès ca kanam yéen a koy seetaan fii ci site bi ñu naan Thiès info Dame wax nga ma sànq ni ma dinañu jël ay lu mat ay Thiès waa wala jël.

ni ko kat man na la nommer jox la li nga xam mom moy euh, la joor d'or bi Sénégal gep xam la mais il faut nga tek ci table ji temps wala nga jëndal ma ay invitation temps lolou bari loolu ci ci ci ci rumeur ci yo xamni nit ñi ngi koy waxtane waaw oh, c'est tout à fait normal lolou sante yalla la parce que bo démé ba créer lo xamni ne ni ngi ci wax ça veut dire que li nga créer c'est important mais da ngay ni liggéey ci presse te dina am tay ben autorisation bo xamné dama leen koy jox parmi toutes les personnes nga ni primé je vous donne l'autorisation d'aller les interviewer doo ci une seule personne bu pour ni primé ko il nous a donné de l'argent amul parce que ça force l'esprit vous savez comment ça force l'esprit parce que di nga gis suba koo xamante ne ni dafa am mérite mais amul xaalis doo ko primer parce que amul xaalis déjà tu forces l'esprit et pour la bonne information Eumeu Ndiaye bu Sud FM il a été primé Malo d'or keroog mais est-ce que non justement ah. je vais vous dire une chose parce que da nga wax important est-ce que nit ki da cartes pour ma primer mhm. non on ne demande à personne d'acheter des cartes pour être primé mais nit ki nga dañ koy sargal su ay ko ay xaritam ko ay de service dinañ ko ay dinañ ko bu ko droit ni événement bi bëgg nga jaay de carte ma jox ay pour ñu faire. Parce que ce n'est pas un événement qui aussi, on le donne gratuitement. Parce que c'est un investissement qui est très lourd. Nous avons une émission de ce que nous avons investi, avec des preuves à l'appui. Mm-hmm. Donc, je veux dire que diñ ñu jox xaalis pour nous primer la lii organiser événement bi ce sont les sponsors qui le donnent la preuve moi, je crois qu'il y a des images qui sont ici Vous fa demee di nga euh, toutes les sociétés yi nga xam ni sont venues nous accompagner et c'est grâce à ces sociétés là que nous avons pu organiser l'événement. dinañu wax tamit euh, ci sa diggante ki nga xam ni euh, Thierno Alassane Sall lan nga ko nommé Malo Dor wala la Dior Dor. Malo Dor euh, la personnalité la plus influente. waaw mu mel nii am na journal bu bindoon ci maanaam ci kii da ngay nommé ki nga xam ne mooy ministre Thierno Alassane Sall. Euh, mais ci wax sa xalaat yi nga xam ni moom moo am ci diwaanu Thiès mu mel ni am na auditeurs yoo xam ni dañ see dugg wax ni kat euh, ñi nga xam ni ñoom ñooy ñoom euh, ñoom ñoo ñoom organisateur organisateur Malaw d'or bi démentir nañu ni kii du Thiès waa da la ne nu mu tëddati. Thierno Alassane Sall mu est-ce que seen diggante amul woon avant bis bi yenn problème yoo xam ni amoon na ci. non pas du tout Il y journaliste moo jékki qui bind bind bo xamantene ni organisateur pour laaj leen centre. xalaat moom mu information mais après ce que vous avez ko mais juste non j'ai répliqué au niveau de de de de sa rédaction mhm. alors mon ci bopam, il m'a appelé au téléphone pour s'expliquer mais je l'ai blâmé effectivement parce qu'un journaliste professionnel def naa ni ngay bind ci un événement surtout un journaliste qui habite Thiès mu wër la organisateur yi ñi ngi dëkk Thiès war nga jël le temps d'aller rencontrer les organisateurs un papier et je vais vous dire une chose il m'a un peu trompé je le dis ouvertement mm-hmm. Mm-hmm. émission mm-hmm. il m'a appelé un jour avant de def publication Fait que ngi Dakar je m'appelle Roman naka j'ai oublié le nom je suis un journaliste du c'est ce qu'il m'a dit parce qu'il ne m'a pas dit aussi la vérité mais dama me dégner Thierno Alassane Sall mon mooy le soir de l'année c'est vrai ou c'est faux ma ne ko non Thierno Alassane Sall il n'est pas le Thiessois de l'année il reçoit un malon. dinaa la wax sax lu ma la warul wax parce que da nga ko waroon xam toujours jour événement bi mais c'est Allé qui est le Thiessois de l'année mu ne ma ah noonu la demee ma ko je suis d'accord mu raccroché le lendemain bi may xëy à ma grande surprise il y a un de mes amis qui m'a appelé pour me dire que ni dañu gis un article ci Observateur ñu bind ci ni Thierno Alassane Sall nommé Thiessois de l'année ma ne ko ah bon mu ne ko laisse-moi le temps d'aller voir le journal alors je me ce journal ça m'a vraiment choqué parce que j'ai compris que ce gars-là soit il veut saboter mon événement ou bien il veut semer la confusion parce que en tant qu'organisateur l'information c'est un journaliste que je ne connais même pas Je ne l'ai pas donc l'immobilisme c'est extrêmement grave mais je vais appeler son le rédacteur en chef de l'Observateur Il demande. Si je le gars je risque de rompre mon contrat avec vous ça c'est la presse mhm. Mais j'ai investi 7 millions de francs ci un organe vous me faites la publicité Vous y la retransmission en direct de l'événement Vous et une insertion publicitaire ci observateur Vous deux spots publicitaires par jour qui RFM donc vous êtes mieux placé que quiconque pour savoir les tenants et les aboutissants de cet événement donc je ne peux pas comprendre un jour un de vos journalistes di bind des informations yoo ne c'est pas vérifier vérifié met totalement la confusion au niveau de la région de Thiès je veux que ça se rectifie le plus rapidement possible raccroche je vais l'appeler bi ko je ne sais c'est quoi le gars m'a appelé ma non seulement bi ma téléphoné na j'ai déjà envoyé le papier mais toi tu n'es pas professionnel man je sais comment ça se passe j'ai des amis journalistes mm-hmm. même si fait ne le papier est déjà parti si tu wooyee ma la vraie information li nga téléphoner à ta rédaction wax la ni le papier que j'ai fait il y a des erreurs mais tu ne l'as pas fait donc quand ce titre là tu l'as fait sciemment mm-hmm. et ça n'engage que toi et je suis prêt à porter plainte contre cet article que vous avez fait donc finalement je me suis dit après il n'est pas question parce que soo ko fait, bon fait créer la confusion j'ai laissé passer Adam, euh, gis nga euh, tamit euh, li nga dit que tu la dit kii nu tuuti Dame Sall jox askanu Thiès Euh, ci waa mu jox ko mu jox ko askanu Thiès jox ko population Thiès yéen en tant que association des consommateurs nan ngeen ko gisee. ndax am na yoo xam ne war nañ ko cee mën a régler waale wala yoo xam ne mën nañ ko cee yokk. li

et qui défendent la population comme exemple âme, double les Si c'est Adam Kavra, ok. Si c'est qui c'est ok. Si c'est X, si c'est Z, c'est ne Nous, pas politiser parce que tu commences à avoir des problèmes avec les journalistes. Et on dit que c'est bien vrai qu'un journaliste professionnel doit, faire, doit faire ses recherches à la source. Bien sûr. Mais nous ma lay wax daal mooy. Mm. ñun association de consommateur mm. ni ñu ko gisee mooy. Mm. soo dee def foire bi. soo dee def foire bi une création d'emplois pour la région de Thiès, mm. en général, les en particulier. Mm. donc de façon que li nga xam juste une mm. parenthèse pour voir la question bu am solo création d'emploi. nous avons décidé cette année. d'associer à la foire une manifestation scientifique. un forum des Thiessois de la diaspora pour la promotion de l'investissement. Donc ça fait partie de notre programme. Benen bi ci politiser l'événement je n'ai pas le droit gis vous euh, êtes un acteur de développement lo am couleur parce que so vous couleur so woté ñi nga bokkul couleur rek ñoo lay wuy si te mën am ñi la dul parce que bokku couleur ñom ñoy majorité bi donc moi je suis à cheval

mais wax naa léegi critère de sélection yi maanaam dafay nekk koo xamante ne ni gis nañu ay réalisation gis nañu ay jaar-jaaram gis nañu service yi nga xamante ne ni aussi rendre na ko la région de Thiès kenn ku nekk xam na ni le président Alilo ko kenn dootu ko présenté kenn. ok mais man tey man sama xalaat bu gàtt ah c'est-à-dire que euh, euh, ku mel ni Iran Ndao nga xam ni tey euh, Thiès waa la doon koo xam ni tey mënoo wax Sénégal te waxuñu waxuñu Iran Ndao mm-hmm. ci li nga xam ne fus na ko ci liggéeyal liggéeyal liggéeyal l'islam. Mm-hmm. liggéeyal ko tamit doomu Thiès parce que Iran bu ñu waxee Iran day andi image yu Thiès. Mm-hmm. ku mel ni Tafsir Abdourahmane Gaye toj li nga xam moy grand théâtre tay mënuñoo ñu wax wax wax koo ñoo xam ne tey euh, euh, Tafsir abdourahman mëno ko gis te ci Thiès waa mm-hmm. ñu tax bolé wo leen jël ci kenn ci ñom ñaar gis nga njël li nga wax c'est très important mais dinaa la defal ben révélation seulement on ne peut pas primer tout le monde à la fois dafa am ñoo xamné ne ren lañu mom am ñoo xamné déwul lañu mom mais ñom dafa am lu gëna important Malo d'Or bo xamné ne je l'ai créé mm-hmm. mooy le festival son et lumière sur la culture religieuse parce que xam nga injustice bu mënul nangu les musiciens ñi nga xam né aduna la ku ci génné ñaari cassette so titre que ci mbéd mi star ñepp wër la ngay dawal bu cher ñu artistes au même titre que les autres té ñoñu di vous avez sallallahu alayhi wasallam ñun ñu gëm ko bu ñu que ci mbéd mi nga est-ce que da ngay bañ la nga non xam nga man man la mm-hmm. li nga dama koy def mu ma jàkkaarloog suñu borom yàlla suñu borom mu xam ne man li ma doon def ni dëgg la ci moom on ne peut pas avoir l'unanimité xam naa ne su boobaa di nga di nga di nga di nga di nga di nga di nga di nga di nga euh, nu mu tëddati euh, sargal ki nga xam ne mooy sëy parce que ñi fi ñu dëkk Thiès ñëpp euh, tey tagg Rasulullah yi fii la ñuy leen enregistré ñu si bari mais dañuy diggu ci dugg rek tëjee émission bi muy que Malaw Door ñu bari ni Thiès waa de l'année mm. Maodo Malick Mbaye di créé moom it am Thiès waa de l'année mm-hmm. ban moi qui est pas dans l'année bon là quand tu me poses cette question c'est un peu difficile pour me répondre cette cette question là parce que tamit xam nous sommes tous des Moi, moom su koy def xëy c'est pour bien faire man su ma koy def c'est pour bien faire c'est vrai c'est un peu gênant oui parce que tu euh, connais. Euh, jaaxal tu ci tu ci côté ci mais moi, personnellement mhm. avant l'événement je crois que cinq jours avant l'événement mhm. il m'a expliqué honnêtement que ni moom li par rapport à li am na différence. non bu gën a ngand la rek ak bu gën a tuuti mais benn la ah. ban moo gën a ngand. <laughs> xaw ma ko ah mais bu la ak bu gën a tuuti mais li ma jaaxal mooy. Cees waa da la ne c'est-à-dire il faut ngeen gindi ngeen gindi ngeen gindi seen i mais ngeen gindi Cees waa yi. Mm-hmm. gindi tamit Sénégal mooy Cees waa da la ne ñëpp ni.

tu n'as jamais vu dans un gala de l'excellence me dire le discours. Parce que j'ai très tôt compris que je ne suis pas fait pour moi, je suis fait pour les autres. Mesdames, c'est un produit que j'ai fait pour les autres. Fini te dire moi, euh, les magaïs, c'est-à-dire que événement bu toll nii euh, euh, organe yëpp nekk fii c'est-à-dire que nga jël melni té da nga wax ni li la li dugg ci li moy da ngay dem Dakar gis melni dañuy duxu organes yi nekk fii. Hmm. ay doomu Cees ne fi. Hmm. nga beddi leen dem Dakar ba leen fi. moom beddi c'est un peu trop dit xam nga erreur du ñàkk. Hmm. mën naa wax ne lii njumte la parce que presse bi man dama am benn njukkal bu ma leen war a jox. parce que ba may door c'était pas évident dañ ma doon accompagner di ànd ak man ci sama ay points de presse. je prends des organes pour ne pas faire de la publicité yoo xamante ne ni aujourd'hui su ma jubee événement dañuy jël événement bi di ko publicité ba événement bi jeex ci lañ may doog a présenter une facture ndimbal mënut a weesu loolu te fa fa presse bi mën ag man mënuma fa ag. kon donc presse bi je ne fais que les remercier et je présente encore une fois mes excuses parce que ça a été une erreur mhm. administrative le fait de ne pas adresser à la presse des invitations mais le looy def te presse bi bokk ci dafa melni nga togg ceeb ci xorm. merci Dame euh, Adama fan ngay tagoto. waaw ah, tàggatoo vraiment di kontaan rek. Mhm. si rencontre bi di content si débat bi. content kontaan tamit. Thiès Info Thiès Info. Mhm. Thiès Info. c'est extraordinaire. 天气预